loolu la ñu nawee ku nekk ci yéen ku nekk ci ñun sans exception am nga mbokk walla gan walla xarit bu nekk à l'étranger nga waxtaan ak moom ci sa biir salon mi ne la yéen Sénégal li fi nekk dafa ëpp ku nekk ci yéen ci ñun ñi loolu dal na la ak say xarit ku nekk ci ñun nettali walla bañ a nettali mais ku nekk ci ñun loolu loolu dal na sa biir kër mais nu nu sommes jaloux de notre liberté nous sommes fiers de notre liberté mais en tant que état war nañu fexe aussi ba sàmm liberté ñëpp liberté ñiy manifester wa waa mais aussi liberté ñi nga xam ni du ñu manifester insécurité Sénégal nag amul sentiment wu insécurité on a par moment de la criminalité c'est ça la vérité aussi comme li am Mbour barki démb que nous déplorons que Mais il faut saluer la réactivité des forces de défense et de sécurité, la police. Moins d'une heure après, ki def ñaawteef boobu téye nañ ko c'est ça aussi l'efficacité bu ngeen xamoon li police ak gendarmerie di anticiper ba tax ay ñaawteef amul ci réew mi kon dañ leen di summil chapeau matin midi soir parce que ñi nga xam ni ñu ngi liggéey te ñu di aar réew mi di ñu aar ba ñu mën di dox niñ ko bëggee Sénégal ngay sénégalais wala ngay étranger tu te déplace à l'heure que tu pas de sentiment d'insécurité maintenant il est possible que par moment que certains d'entre nous soient agressés qu'il y ait des vols par moment qui peuvent finir de manière violente comme ni mu amee mais Sénégal lu fi am police ak gendarmerie dañ ci am jàngat étudier ko fexe ba loolu dootul amaat et incha allah di ngeen gis matukaay yi nga xam ni ministère de l'intérieur dina ko ci jël pour que yooyu bu commencé bu amee benn am ñaar rek day law mooy li am ci yenn réew yi nga xam ni boo fa demee am na réew yi nekk fii ci Afrique boo fa demee doo génn sa hôtel wala booy génn sa hôtel dañ lay dañ lay booleeg cinq wala six garde corps yoo xam ne seen yi ngànnaay sax duñ ko nëbb am na fii ci biir Afrique ñaanuñ yàlla Sénégal egg foofu moo tax on encourage on félicite les forces de défense de de sécurité pour li nga xam ni ñu ngi koy def ñu am ay compatriotes yoo xam ne am nañu peut-être problème avec la justice c'est vrai ça existe dans tous les pays loolu mooy aussi état de droit ñoom ñoo tooñ dañ leen a tooñ man xawma parce que nous sommes aussi dans un pays il faut respecter la séparation des pouvoirs loolu aussi moom mooy dëgg te ku nekk ci ñu war nga jomb en tout cas moi en tant que premier ministre le ministre de la justice est là devant moi laajuma ko ci benn dossier parce que j'estime comme moom ci boppam waru cee gëstu donc bu ma ko laajee rek maa ngi koy pousse muy def loo xam ne du cërëm il est la et je le regarde droit dans les yeux parce que c'est ça le fonctionnement d'un État nit ki bari na looy critiquer nit wala loo koy xasee de fekk nga mel noonu Ismaïla Madior gi ni toog xam naa ko bu yàgg nit ku baax la bu ma ko laajee dina ma wax parce que war na ma wax may premier ministre mais rus naa ko laaj loolu ndax bu boobaa maa ngi koy puus ci mu def li nga xam ni